salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Dakar Net ginnaaw bi ñu bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun seen rubrique li nga xamante ni mooy reportage dellu si waat na ngeen ci ànd ki nga xamante ni moom mooy Ouzin alors tey ñu war a waxtaanee li nga xamante ni mooy violence bi ñu nemmeeku ci politique bi euh, rawatina yàggul dara euh, gis ngeen ko fa li nga xamante ni moom mooy Ziguinchor li fa am Ousmane Sonko song bi ñu ko song kan moo tooñ moo tooñ wala tooñu loolu la ñu bëgg a waxtaanee ce que violence bi politique bi jar na ko loolu yëpp di ay laaj yi nga xamante ni ñoom la ñu bëgg a jébbal sénégalais yi ñu daal di koy waxtaane ak ñoom ñu wax ci seen xalaat maa ngi ci ànd ki nga xamante ni mooy papa sama frère papa ñu dem xool sénégalais yi ban gis-gis lay am ci li ñu taamu ngir waxtaane ko ajuma ban gis-gis nga am ci violence bi ñu nemmeeku ci euh, politique bi jamono ji waaw ça ginnaaw bu ma la nuyoo nuyu waa dakaar net ah di nuyu waa Sénégal yëpp donc di nuyu sama vidéo bi ñu koy déglu ñu koy seetaan ñëpp rafetlu wu ma ko ko man catégoriquement rafetlu wu ma ko war nañ mën a def suñu ay campagne def suñu ay élection ba mu jàll si jàmm violence du ci am daal parce que ndam li génnul réew mi lépp c'est Sénégal qui gagne donc rafetlu wu ma violence bi benn yoon quoi waaw waaw loolu man sama gis-gis loolu la. man defe naa ne politique jarul loolu quoi waaw wax dëgg yàlla politique jarul ku nekk war nga mën def li nga bon li nga sentir sans autant que mu am violence quoi bokk si quoi waaw parce que boo gisee violence bi am si si xale yi foofu la jógee quoi waaw. bëgg-bëgg la bëgg-bëgg la. bëgg-bëgg la quoi man dama naan sax xam nga gars yi peut-être loolu moo si neex quoi pour pour se faire pour se faire un buzz ñu def violence xam nga parce que gisuma si gisuma si intérêt bi quoi wax dëgg yàlla war na mun ñàkk daal waaw. mais gisoo gisoo ni tamit que buñ ko jëlee si kaaw ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko gisoo ni en quelque sorte peut-être dañ koy provoquer wala dañ koy tooñ ñenn ñi lool lañ jàpp. waaw mais waaw waaw loolu moom loolu moom loolu moom dafa leer quoi. saa bi bi ñu ko yàggee tooñ léegi quoi. yàgg na trop bis bu mu jógee bis bu mu commencé di wax contre contre régime bi yéen gis naa affaire gars jéemal nañ ko lu nekk fexel nañ ko lu nekk mais bon. voilà mais lan moo si responsabilité état bi parce que nemmeeku nañ ni Doudou Ka mi nga xamante ni moom ay ndawam ñoo ko song moom sécurité bu doy waar mooy nekk si moom rawatina ay gendarme te Sonko gisoon dañ ko war a jox ay gendarme wala ñu jox ay policiers ñu koy ñuy wattu kaaraangeem ndax tolluwaayam. non état du doxalee état dans les grandes démocraties bu ñu eggee si si diggante diggante bii nii euh, dañuy jox euh, sécurité sécurité day partagé wu. loolu mooy dëgg grand li ngay wax ni loolu mooy dëgg cest à ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañu war am sécurité bu doy c'est-à-dire même oppo ki kii quoi même opposant bi sax da ko war a jox même les mêmes moyens que que nekk si pouvoir bi c'est normal ñëpp ay citoyens sénégalais lañ kenn war a ëppale kenn mais fii boo faree si si nguur bi tu as tous les privilèges boo fi boo fi farul bokkoo. loolu moo war a jeex quoi c'est-à-dire actuellement moment bi ñu nekk mentalité dafa war a changer quoi comprendre nga dañu war a xam ne yi xe yi amoon mënutul am dañ ko war a dépasser quoi. lay lay conseillé Sonko. non Sonko amul ma koy conseillé man mun Sonko mun ma ko conseillé peut-être sama xaar laay joxe rek que fu mu jàpp baax na na góor góor puis na mooy tamit tout le temps ñuy wax si moom munu ñàkk sax quoi mais nee gën a jubal rek te je pense que mi ngi si yoon boobu noonu quoi yàlla baax na. waaw man lu ma ci wax mooy nit ki lépp looy def war ngaa jiital yàlla war ngaa jiital dëgg bu fekkente ne yow li ngay politique pour sa doomu réew dëgg la pour sa réew moo la ñor di nga xool fu dëgg féetee nga ak dëgg bu fekkee ne yow li ngay politique dafa am intere yow boo boobaa yow sa intérêt ngay xool lu may ñaan ak lu mel ni wax nañ jiital nañ jiital ko askan bi nañ jiital dëgg te nañ moytu violence bi violence. baaxul si réew parce que nee nañu musiba ah, mu nga xam fu muy commencé mais doo fu muy jeexee te yaakaar naa Sénégal benn bopp la kenn war koo xar ñaar te yaakaar Sénégal ndaw na ndaw boo xamante ne képp ku fu nekk di fi yeewoo rek war ngaa xalaat lii jëmale réew mu kanam war ngaa xalaat lii jëmal sa doomu réew ah, kanam ak loo demee jàmm su ma jàmm parce que jàmm su la lépp xaj te lii ma gis nii dafa mel ni ku nekk sa intérêt bopp ngay xool ñoom ñëpp kenn réew mu tax laa jóg ku nekk sa intérêt bopp ngay ngay parce que bu fekkoon ne euh, réew mi lañ tax a jóg dëgg ak li nga xamante ne mooy doxal réew mi ak ki nga xamante ne am nañ ci moom yaakaar yaakaar suñ ko dénkee mun naa doxal réew mi ñu jël lépp jëm jëm ko fa jëbal ànd ak moom may ko doole appuyé ko ñu ànd liggéey réew mi Sénégal jëm karam parce que Sénégal bu jëmee karam ñu ñoo jëm karam Sénégal bu doxee ñu ñoo dox Sénégal bu wàññeekoo ñu ñoo wàññeeku kon nag yéen waaye politique yéen politiciens yi maa ngi leen ñaan leen lancer appel xool leen si doomu xool leen si doomu doomu réew mi xool leen si kilifa diine yi xool leen si kilifa aada yi ku su mel ni euh, Baye Niass ñëw na fa ba ñibbi liggéey na li muy liggéey dem yàqu réew mi Serigne Touba ñëw na fi ba ñibbi liggéey na li muy liggéey dem yàqu réew mi El malik euh, ñëw na fi liggéey na li muy liggéey ba mu jeex dem yàqu réew mi Limaamu Laay maanaam bañ jeex tàkk ku nekk jaar nga fi liggéey lu rafet te dem te yàqoo réew mi mais pourquoi ñoom politiciens yi mënuñoo xool si ñooñu bu nekkee dëgg moo leen tax a jóg pourquoi mënuñoo xool si suñu mag yi démb yi. ku nekk jaar nga fi indi li ngay indi woote li ngay woote su si si si teg ko si euh, diine ak euh, teg ko si euh, sariya teg ko si na te amul benn violence dem nga sa yoon ba léegi su loolu la ñu nekk di dox ku ci am problème da ngay dem si kër diine yi gaa ñaanal la est-ce que kon est-ce que ñoom buñ mel maanaam buñ meloon na ñoom est-ce que kon lii dina nañ jéem a roy si ñooñu nañ bay violence bi violence bi day yàq réew violence day tas réew. te day tax sa doomu réew soxor soxorante ku ne ku ne maanaam ma en la nga en ma baaxut ñu ñu neen la bu ñu demee tey ba yow yow sénégalais sénégalais di en morom sénégalais fa fa lañ demee ba naan man man si man si si diw laa bokk bëgguma bëgguma waa bëgguma waa waa Kambé fa lañ jëm da nga nekk ay sénégalais nekk ay doomu africain mais dañoo war a bëggante dimbalante yërëmante jàppalante liggéey réew mu jëm kanam mais loolu du yoon loolu moom loolu moom nu wax dëgg yàlla du yoon ñun violence bu amee xëy na doonoo xamul suñu cër violence bu amee rek doonoo xamul suñu cër waaye bu nu xamee suñu cër violence waru fay am waaye le président de la république muy Macky Sall moo njëkk a teg lu tax waaye. fu ko xoolee fu ko naan xoolee waaye daa xamul fu ko xoolee waaye ñun xoolee ñu ko foofee ba sa moo teg loolee parce ñun gaal seen ñun yaa salaam bambay salaam waaw bamb mooy salaam wax dëgg yàlla nag wóor na maam Cheikh Fall suñu njiit yi ñoo ñu teg finance mais ci naka quoi waaw parce que parce que xaaruñu ko fii parce que jaay doole di def ñàkk suudu noonu yooyu mun naa ñàkk xool seen TV rek ñuy wax nii moo tax moo tax ñun léegi-léegi bu ñu tegee ñu teg finance parce que moo ñu ko tegal parce que ñun ñu loolee Macky Sall moom nga xam ne yàlla moo ko jax mu doon njiit mu doon njiit doon doon njiit boo xam ne njiit xam nga la mooy njiit njiit yaay mu dee séddu loolu lañ ko wooree ñun ñun ay ñun waa kër Sëñ Tuubaa la waa kër Maam Cheikh Fall la réew mi moom Bamba ko moom waaye boo jiitoo ba pare waaw waaw waaw bëgg a nga yow yow yow yow lépp yow yaa koy séddoo loolu du yoon moo tax violence foo mu am mais bu toogoon fu mu war a toog séddale fu mu war a toog violence du am fu dëgg yàlla nag njiit bu la tegee nga jiitu yow yaay mën day séddu man ka jub ma de yàlla ko jiital teg ko wax dëgg yàlla nag waaye na centralisé na defar lépp te yàlla tax ñun yàlla moo ko fi teg ma yàlla bu la tegee nga jiite boo dee séddu yow yaay mën day séddu waaye doo doo séddu ba pare ba pare bëgg a indi gars yi waaw waaw waaw loolu mën naa ñàkk nag barke alxuraan te yéen yéen seen télé bi yal na gën a yokk yal na gën a yokk yal na gën defal kaw seen kanam parce que lii foo foo wax ko parce que Sénégal yaa salaamu la. waaw waaw waaw waaw waaw. si réew mi ngeen bokk da war a wax. Ah, waaw waaw mais mais bu ñu waxul waaye fo waaye bu fan fan lañ jëm bu fan lañ ah? xool lii lépp xool lii ah? waaw waaw waaw waaw. mais moom moo ko indi. xam nga ku nekk am nga foo ku nekk am nga sa choix donc nit kii war ngaa far fu la neex mais man pour man gisuma ne daal xeex ak xuloo bi moo koy réglé ku nekk am nga sa carte am nga ku la neex am nga koo bëgg a sa gox xaral ba la jour ji nga dem votel ki la neex mais jàpp naa ne daal xeex bee xuloo bi daal faju ko te it soo xoolee li ma dégg barki dem boo jaay Casamance loolu jaru ko ñuy ñaan yàlla def alerte mu teel a yem foofu xam nga. ñu teel cee jóg mu bañ a tee yem feneen ak feneen daal ku ci nekk am nga koo faral nañ xaar ba bis ba rek ku ci nekk dem ki nga faral nga nga nga botal ko li yàlla def ñu xam ne loolu moo am que gañ loolu mooy ci sama gis-gis daal ah. bu ñu bu ñu waxee fi nga mujjee wax côté côté Ziguinchor ñu gis ni Ousmane Sonko gis nañ ni bi muy dem ci aéroport dañu ko attaqué et que tamit waa état bi ñoom ñooy xaw a provoqué tuuti euh, ñi nga xamante ne opposition bi. waaw loolu mënu ma si sori parce que mën nga wax ne état mooy provoqué comme si mën nga wax ne waa kër Ousmane ñooy provoqué. donc comme actualité yi ñuy déglu yëpp ñi ñu ngi naan ñii ñoo provoqué ñii ñu ngi naan ñii ñoo provoqué mais ñoom ma leen di xamal ne ñoom waa Ziguinchor catégoriquement ñoom nañu xam ne kenn rek moo mën a doon maire de Ziguinchor que ça soit Ousmane Sonko que ça soit Doudou Ka ki mu àndal te soo seetee Doudou du candidat kon ay ay ay war nañ def ndànk donc ki nga xamante ni moom la Doudou Ka bëgg a élire mais nañ dem voté ko massivement Ousmane Sonko tamit ñi ñi ànd ak moom xeex bi jaru ko daal xeex bi daal jaru ko jaru ko histoire bi jaru ko donc man daal su ma sañoon daal xeex du ci am xuloo du ci am nañ rafetoo ba élection yi jot ñu voté xam nga kii gagné gagné massivement loolu laa ci am lu ma ci lool daal moo ci sama xalaat daal waa waaw merci beaucoup moo frère